Amis de eSport TV, merci encore gars de la confiance renouvelée, merci de du like, merci de d'abonner, merci également gars. Hein. Débat ici, les commentaires, un plaisir renouvelé chaque fois, des partages et des informations. Mbokki Sénégalais, fait fou les maintenant 14 régions du Sénégal. Adou World Cup, ñu ngi leen di jaajëfal ñu nekk également ci l'hôpital yi ci kër yi tëdd feebar yàlla na suñu borom fëgg seen bopp ñëwee rek jàmm ñu nekk ci kaso yi ngeen xam ne aussi erreur judiciaire ak génne nañ def lu moo leen fa yóbbu suñu borom génne leen fa delluwaat leen seen njaboot ñu dédoo àdduna suñu borom xare leen naajëna fi daw si gars yi te yéexee ñu on avance ensemble dans la magie de eSport TV l'actualité on continue gars actualité ñu fas yéene waxtaan li nga xam nag donc équipe nationale du Sénégal ak li nga xam nak moy donc Demba Bay liste bi am ay joueurs yu bari ci wara bok euh, ki di retour de Edouard Diolko Mohamed Dogore Mendy ak aussi bien entendu gars le Maroc candidat à la Coupe du Monde 2030 le yëpp nañ ci indi ay leral mais d'abord, abord gars yi nag wàllum NBA LeBron James bi la posté tey ci Instagram pour wane ne moom daal instant il est plus que motivé pour daal di dellu si moom mi nga xam dafa am gaañu gaañu boo xam ne ci parquet actuellement donc King James prépare son retour moo tax mu daal di publier bii nii gars yi pour wane rek actuellement il va revenir et tout détruire li nga xam nag mooy MVP yi nga xam gars yi nag pour l'instant. instant bu fekkoon ne NBA filé. lay am ñoom ñett ñi ñoo gën a wane seen boobu Joel Embiid Giannis Antetokounmpo également Nikola Jokic ñoom ñett ñi daal gars yi pour l'instant au niveau de la NBA ñoom ñooy démarqué wu par rapport ak. ñeneen yi mais aussi gars yi <laughs> waa Barça sama gars yi waa Barça ak waa Espagne doon na ñëw tey seen boy bi <laughs> gars yi euh, Gavi ngi nii de Gavi moom saa yi ñeme na lu métti man mosuma gis est-ce que yi yéen dama leen laaj seen koñ amoo leen genre jour meloon nii koo xam ne moom gars yi der la ah, moom day dugal boobu fu mu ko <laughs> moo ki ngeen gis ni également gars yi nag moo nekkoon arbitre bi arbitré woon Ligue des champions finale bi 2016 diggante Atlético Madrid ak waa. Real de Madrid nee mom nangou euh, nangu na ne dafa jox wa Atletico Madrid ñu duggal benen but parce que premier but bi nga xamné wala bok benn but bi Sergio Ramos duggal dafa amoon hors-jeu ndax benn benn moo laal mais pour attraper mo jox après mu daal di accordé beneen but pour wa Atletico de Madrid ki nak di Lionel Messi la Pulga gannaaw bi nga xamné nak gaay nenañ donc actuellement da fay laccé donc 600 millions gaay nenañ nak Al Hilal mom actuellement ñom 300 millions lañ paré pour jox ko ki ngeen gis ni également gaay ah, hein di Chaibi Chaibi joueur la nak ci Toulouse mom nak équipe nationale de France espoir dañ ko woo mais moom décidé d'aller jouer Algérie lu tax ma leen koy wax mooy que actuellement. gars actuellement football il faut commencer changer booy yi ay jamono dañuy bàyyi qui amatuñu fe équipe par défaut équipe nationale par défaut soo ko tànn seen dëkk mais ñoom dañoo ñëw tànn léegi seen dëkk Oussep Aouar moom ah, par défaut peut-être mais moom daal nangu na léegi ne pour jouer pour Algérie mais day actuellement donc gars yi aujourd'hui Afrique egg na foo xam ne joueurs yi ab waratu nekk fii di daw ci ginnaaw kenn ku ci am 17 ans da nga war def soit nangu ne da nga ñëw équipe nationale du Sénégal Messi gars yi wala beneen équipe nationale ah le Maroc candidat donc à la Coupe du Monde 2030 Espagne Portugal Maroc la mooy nekk dossier boo xam ne dañ koy déposé pour donc la Coupe du Monde 2030 ci li ñu euh, dem bien entendu le Maroc bi nga xam ne gars yi aujourd'hui mooy nekk première nation africaine buy organiser Coupe du Monde ci format bu bees bi mu war a donc format bu bees boo xam ne gars lu tollook neuf équipes africaines dinañ ci bokk benn équipe dina dem donc barrage bu jàllee mu nekk dix équipes africaines mais aussi format la boo donc 2026 bi lañ koy mais aussi Victor Osimhen le phénomène de la Série A le nouveau phénomène hein, donc du Napoli mondal club yi ñoo koy City hein, Chelsea United Paris Saint-Germain yéen boo leen bon club ngeen bëgg demfa le Real de Madrid également gars donc le Real de Madrid donc ñom euh, gis ngeen leen li jëm ci walum donc coupe du monde des clubs bi ñuy organisé donc Real de Madrid euh, dina ci euh, teewaat bien entendu mais benen format la parce que format bi ñew donc à partir 2025 dañu club yi dañuy yokk et club yi yokk na dañu nak ñiko jël hein, donc avant 2025 quatre équipes yi ko jël avant 2025 dañuy bokk li nga xam mooy donc ci coupe du monde des clubs bo xamné 32 clubs lay doon donc di wané même Chelsea bi ko gagné won donc da jéeg ñom tamit dinañ ci bokk les Blues de Chelsea donc gars Liverpool aussi en route vers Madrid le Real de Madrid da ngeen Firmino bi nga xamni disputé dernière Ligue des Champions avec quoi euh, donc Liverpool donc il fera partie donc euh, du voyage ngi Robert Firmino jour le bon moment encore parce qu'il a toujours été généreux donc aussi effort qui parti et tout les plus euh, de plus le plus de clean sheet donc aussi cinq grands championnats il y nga Disney ne Ter Stegen mo nek ci Kawa a top également nga xam moy Provedel bu donc Lazio de Rome top ci Evan Diouf hein, le franco-sénégalais Top ci erré entre autres Wa Mozambique na gay yi na nañ ñoom it seen liste liste bo xamna na gay gars ah, liste buñu élargir la mais quand même ki nga xam moy Reinildo di sen joueur euh, vedette nek du côté de Atlético de Madrid mom du ci bok moy sen arrière latéral bo parce que dafa am blessure moo tax du dal di tew donc ñoom am nañ ben forfait majeur mais aussi de retour d'Edouard Edouard Ndiol Kumba Gore Mendi Gorée Mendy Mendy dellu si bojo bojo yee seen bay ñëw na waaw waaw waaw waaw Edouard Ndiol ku ma bi doo ko remendi il est de retour aux entraînements gars yi donc par rapport li nga xam ne moo jëm ci wàllam euh, dellu donc dans le milieu professionnel est-ce que Aliou Cissé da koy woo dans les normes ak euh, li nga xam justice bi am da ko war a bàyyi mu daal di noppaliku mais quand même bu ñëwee aussi c'est toujours Mendy Mendy reste di ki nga xam ne également mooy donc Mouhamadou Lamine Camara le joueur de US Berkane RS Berkane moom nag gars yi laaj ñu ko ndax da ngay toog RS Berkane ou pas mu ne en tout cas gars yi pour l'instant maa ngi foofu maintenant on verra on verra de quoi l'avenir est fait moom nag euh, bon mën na bokk ci U23 yi nga xamné Demba Mbaye di wo parce que Demba Mbaye amna cadre yu est yu nek champion d'Afrique donc U20 yo xamné ne wo wat mais aussi li ñu leen wax moy que né benn ci gardien donc champion d'Afrique Afrique yi bokk na ci ñi wo ak arrière latéral maintenant aussi donc amna yenen cadre yo xamné wax nga nañ ko Lamine Camara amna ñeneen ñoo xamné aussi nee dinañ ñew renforcer équipe bu Demba Mbaye guys c'était les informations que je voulais vous donner toujours un plaisir de vous servir way leen like way leen di abonné on avance ensemble dans la magie de eSport TV bu baxé ci yéen la bu bonné ci ñun la gay ngeen Serve au